mbaa xam ngeen ni bari na ay dossier justice yo xamanteni ba tay ñu ngi ci tiroir yi et pendant ce temps famille victime ñom ñi ngi wéy di joy seeni fan la problème bi fété deug deug yàgg nañoo dégg Sénégal ay meurtres yo xamanteni ba légui amul coupable té li ci ëpp en général ay bavures policières moo koy les derniers en date moy ñi nga xamanteni ño ñak seen bakkan ci manifestation wu mars yi ba tay yoon tegul lu lèr ci loxo seeni njaboot. ay milliards mënul fay bakkan bakkan mom ay milliards sax mënu ko fay ñun luñuy ñuy laaj ak lu implorer que justice soit faite waaw dëkk bi lañ kii parce que ñëpp ñu ngi doon crier naan commandant bi moo tiré bal commandant bi ba gars yi seetaan vidéo yi ak image si télé ba gars yi dem dugg si commissariat bu parcelle maa woon fii sama néeg di ko kiñ ni moo ko rey nañ fexe ba mu feeñ mu ñëw fii balu nu àq

ñoom dinañ am beneen taxawaay bu ñuy am bu dul bii. nga jugement dafa war a crédit dafa war a am gëdd quoi. imagine toi vingt ans à dix ans on a réduit la moitié de la peine te man lu ma ci gën a jaaxal mooy bu ñu kon continuer nii noom dañ koy libérer sax parce que bu ma leen déggee ñuy wax rek man lu ma leen déggee ñuy waxee rek la xam ne lii jeu la quoi. sax wul famille bi ngir ñu mëna def seen deuil correctement ndax tant que téguñu loxo ci coupable bi mu leer leen ni mi ngi fay ay erreur duñu mëna a am dal ci seen métit waaye léeg-léeg sax ñu amal ay procès waaye sentence bi en général du satisfaire ñi nga xamante ni ñoo ñàkk ñii ñi euh, accident la ñi ngi naan du accident ñi naan bon dañ ko rey ñi naan reyuñu ñuko mais de toute façon nous attendons yaakaar nañ suñu état bi parce que compétence bi ñu yaakaar suñu justice bi ak suñu police administration publique bi waroon nañ ñoo mëna au moins won ñu ne carrément fallu sen li moko ko bo ba légui c'est ça euh, lool lañu réclamer ba légui euh, que la que la lumière soit faite bo ba légui ci lool lañu voilà amna lanterne lenteur ba léegi on n'a pas une idée claire ba légui euh, disant que peut-être dossier bi amna de voilà am na leeral. moom gi sax amna fondement ndax bari na fi ay dossier yu ni mel yo xamanteni dañ leen classé sans suite ba tey jii. ay meurtre yu amul ben explication te yenn say sax ñu amnistier affaire bi comme si le cas ci dossier maître Babacar Seye bi nga xamanteni ñu bari japp nañu ni assassinat politique la won

Totemactu tu tamit ci suñu site internet www.totemactu.com